jële ko ci Serigne Saliou Mbacké mu mbokk mu nekk mbokku deret di waajur di nijaay Serigne Saliou Mbacké jaarale Serigne Saliou Touré fi war a jaar bi war nekk ci moom lépp nekk ci moom muy xam-xam ba ak yar ba ak xam àddina gi fees dell ak fulla nekkoon murid saadix moo tax sëriñ bi jël ko indi ko fii bi sëriñ Abdoulaye waxee Cheikh Saalihu mu ni ko li nga bëgg lépp am na ci jëm ji di sëriñ Saali Touré moo tax mu indi ko fii ci kees muy fu jafee nekk ndax ci biir dëkk bi diina yépp am na fi tariixa yépp am na fi sun mbokki njaasaan yaa ngi nii sun mbokki cene ba yaa ngi nii sun mbokki tiwaaw na ngi nii waa kër maam Cheikh Saadi bi ñu ngi nii waaye kenn mësu koo jam mësu koo yab masala mësu koo jam ndax xam-xamam bu sell ak yaram bu mat ak muyitam bu nekk ci moom nee loolu moom sëñ Cheikh Thioro xam na ko ci sëriñ Saliou Touré bi fii Cees ku ne xam na ne ay taalibe ngi fi woon ñu daan liggéey sëriñ Touba waaye keroog bi mu fi ñëwee toog fi ab diir taalibe yépp maase nañ ànd ci liggéey sëriñ bi te lim njëkk génn ci ñoom mooy ay caaxaan ak i féewaloo ci xel bu rafet ak xam-xamam bu rafet ñépp xam ko ci moom nee lim fi toogaloon Serigne. xalifa général kullu murid nekk ko fii ci Thiès mate na ko sëkk te yan ba la muy diis diis mësu cee jamaj mësu cee juum mësu cee dox lu wërta dox ba lépp àgg fi mu àgg te ku gis jëmam ji ni mu àdduna foo ko mas fekk la muy sol boo ko xaymaa lépp ëppul junneeg ñaar téeméer te foo ko fekk na muy toog ca yar ba ak teggin yi yéen a ko gën a xam te la tax mu ko doon def mooy bis bi tey kon nag ñu ngi koy siyaar di leen seereel loolu nee na moom sëñ Cheikh Thioro ci jëmmam bi mu ñëwee fii ci kees lépp lu mas soxla sa waajuram Cheikh Mouhamadou Bachir dakoral demal ci Serigne Saliou Touré ba 1991 89 bi ko sëñ bi sañculoo Mbàkke Kajoor daa ñëw fi sëñ Saliou Touré ni ko sëriñ bi da ko damaa jox kër mat na juróom fukki mètre wet gu nekk nee na ñun ñii jot a dem xam nañ loolu mu boole ko ku ñuy wax Dof Cissé ak Moustapha Dieye ak ku ñu wax Sidi Ñang ak Baddo Ba ak ñeneen ñu bari fii ci taset la dem jënd benn toolu filaaw ba suñ saayu ture ci ñeent fukki junni ñu dagg ko def ko ay xer mu jël benn benn ñu jënd ay seng yu bari ci million ñu ñëw dem ba Kajoor am nañ fa weer ba këram gi àgg nee na loolu sëñ Sadio sëñ Sadio defal na ko kon bis bii bisu seere la moo tax bu di ko seere nee na ñaanu woon yàlla mukk gaaw koo seere waaye fokk mu seere la ko kon sëñ Cheikh ture sëñ Cheikh Thioro nee na mi ngi fedd li kóllëre gi ci njaboot gi di ko jàpp neen lam la daan wax rek lay baamuwaat sëriñ Saliou Touré sëriñ Touba la fi nekkaloon te lii mu war a def lépp def na ko te yoon wa mu leen tegoon yéene nga ca kon nag liggéey boobu yàlla na ko sëriñ Tuubaa àggale ci yéen nee na mi ngi jaal ñépp ne di ko jaale ci bokki taalibeem yii muy daay tasawur subaan bi nga xam ne sëriñ Saliou Touré moo ko sosoon mu dem ba dugub néeg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 gën noo gàtt ndoog tawféexi sëriñ bi